dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi ko di xëy di ñu xibaar xibaar bu tey war musiba ma ba kumba gu rëy ni ki démb moo xew ci yof ci wetu centre aéré bu bees yawo bi ñaari waxtu di jot yéen kaay gi nee na benn camion bu sëfoon béton moo fa rey ñett nit yéen kaay gi nee mbir mi ni mu demee ki nga xam ne mooy chauffeur bi da doon dawal ba mu yàgg camion bi dérapé maam mu amuti frein mu bës fekku fa dara daa di fiir ab marchand ambulant mu sedd guy daa di mbëkk ab taxi boo xam ne yeboon na ay nit am na ñaari xale yoo xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan kenn ki ñetti at la amoon kenn ki juróom-ñaar cay at ba tey ci biir bi di réew mi ñu fekk fa lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta mi nga xam ne maanaam ma nga fa woon la mu xamle nee nag camion bi ci boppam amutoon ay frein te jamono ji li ñu nemmeek mooy bi mu commencé taw ba léegi accident yi daat nay bëri loola loolu nag war naa ñi nga xam ne ñoo chauffeur yi xoolaat seen frein yi ak Lamine Ka mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum sàmm gi njiitu réew mi la mu xamala Aly Ngouille Ndiaye jamono ji xam ne war nañu faa def ab paratonnerre maanaam installé ko fa ni mu gën a gaawee balay dënnu yi di rey nit ñi Macky Sall wax na ak Samba Ndiobène Ka nee na ko Tabaski gi nga xamante ni li si des bëreetul xaral sa tànk tubay ba askanu Sénégal duñu am jafe-jafe xaar journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy mulancé yi dañoo bëgg yokk li nga xam ne maanaam mooy mburu mi journal bi di ko Quotidien mu xëy di jàngat njiitu réew mi di président Macky Sall ak jafe-jafe yi nga xam ne maanaam jamono ji ma ngi koy jànkonteel yéenekaay gi nee na neexul ba neexul waaye Macky Sall ma ngi ci ay jafe-jafe juróomeelu mandaam bi mandaam bu mujj bi ay jafe-jafe neen la bu passé croissance bi nga xam ne dafa daal di nërmeelu économie réew mi ñëpp gis nañ ni mu mel ak parti bii di APR jamono ji ñëpp xam ne moo raw sabar gu tas yéenekaay gi de la témoin xëy feelu Sud Quotidien wax ne njiitu réew mi di président Macky Sall dëgg-dëgg ma ngi ci ay jafe-jafe yu bu passé Covid bi nga xam ne andi na ay gàllankoor ci réew mi coowul suuf li nga xam ne mooy jàbba jonge ci réewum Sénégal la ak lu soxla maanaam ñàkkuk yar te teggin gi nga xam ne nemeeku nañ ko ci ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ànd ak moom scandale yu të dakk yi nga xam ne nemeeku nañ ko ci réew mi loolee lépp gis nañ ko te nag li muy niru mooy situation bi ci boppam dafa ëll Macky Sall da koo waaj a dépassé yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Habib Sy moom nag la mu xam ne nee na jafe yi nga xam ne maanaam moo am ci réewum Sénégal lenn rek moo ko mën a saafara ñu anticiper ay élection présidentielle 2022 te Macky Sall du sa bokk ndax jamono ji maanaam réew mi fa mu jëm Sall scandale yi nga xam ne gis nañ ko ci réew mi bëri na lool te ni nga xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndee maanaam yor Covid bi am na lu bari loo xam ne leeru sa maanaam ay njublang ak i lii xóor yoo xam ne nemmeeku nañ ko sa réewum Sénégal jamono ji gis nañ fi ay institution budgétivore yoo xamante ni maanaam amul benn njariñ askan wi te xaalis bu bëree bëri moo fay dugg jamono ji gis nañ ne économie réewum Sénégal daal nay nërmeelu te nag soo moytuwulee li xew ci yeneen réew yi mën naa xew ci réewum Sénégal ndax li nga xam ne moo xew Mali ak li xew Guinée ak li nga xam ne mooy xeeñ Côte d'Ivoire loolee lépp mën naa xew ci réewum Sénégal ay manifestation yoo xam ne manifestation populaire yoo xam ne kenn waajulu ko loolee mën nañu ko sénd ci réewum Sénégal balay bëy di way mbuus réew mi jamono ji war nañu ko waxtaane kàddu yu Habib Sylla ma ngi ci yéen kaay gii di 24 heures yéen kaay gii di réew mi quotidien na réewum Sénégal li ñu fi jàpp ci drogue bëri na loola ñetti fan rek jàpp nañ fi lu toll si juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci kilo yéen kaay gii de la turbine nee na sa kolibanta foofee lu toll si juróom fukk ak juróom ay kilo yamba la ñu fa teg loxo journal bi di source a nee na arm yi nga xam ne tegoon nañ ko loxo ci Touba jamono ji ñoo ngi siy tudd ay kilifa yu mag a mag ci dëkk bi journal bi nee na am na benn waay bu ñuy wax Cheikh Lo nee nañu mooy fournisseur bi yéene kaay gii de libération mu ñu xamal laal ñu benn waay bu tudd Saliou Thiam ak Cheikh jamono ji teg nañu leen loxo ñoo ngi ci ab garde à vue waaye nag enquête bi li mu wane ak kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fa daat nay doy waar loola moom Cheikh Lo mi nga xam ne moom lañ joxar bi baraamu tuuma ne mooy fournisseur bi ay arme de la ñu fekk këram waaye nag si toile di la ko denc ki nga xam ne mooy Saliou Thiam bi ñu ko laajee nee na bëri na ay kilifa fa yoo xamante ni laale nañ ci mbir mi kilifa yenn yi ñoo ngi Touba kilifa yenn yi Daaru Musi kilifa yenn yi Jurbel kilifa yenn yi Thiès ak ñu nekk Dakar Cheikh bi ñu ko laajee nee na lu soxal wàllum arme yi fournisseur am Dakar la nekk moom Cheikh Lo bi nee na du tey ji rek la ñu ko jàpp ci mbirum arme ndax novembre 2019 maanaam tegoon nañ ko loxo ci lu jëm ci wàllu woowu yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa président Mbagnick Diop njiitul MEDES daan nay wax ne 200 milliards yi nga xam ne état bu Sénégal waxoon na ne daf koy génn ngir jàppale ko entreprise yi 12 milliards milliards moo ci génn gun wax na ci doo d'intérêt bi Covid 19 bi nee na nag dafa mel ni catastrophe naturelle moo këpp ci seen kaw waaye nag secteur privé bi jamono ji ñoo ngi xalaat di liggéey en bon intelligence ngir nag def ay proposition yoo xamante ni réewum Sénégal maanaam buñ ci jaaree économie réew bi mën naa jugaat wax na tamit lu toll ci fukk ak juróom ci ay proposition yoo xam ne defal nañ ko état bu Sénégal maanaam xàllal nañ ko ay yoona daan nay wax ne secteur privé bi jamono ji seen priorité mooy fexe ba entreprise yi maanaam noyyi waat daan nay wax ci Covid bi ak perte bi nga xamante ni dina am ci entreprise yi nee na perte la boo xamante ni bu rëy la waaye nag jamono ji évaluer guñ ko danañu ko daal di xayma ginnaaw coronavirus stade yéenekaay xëy di ñu xamal laan ñu Liverpool bu Sadio Mané ni ki démb juróomi bal ci ñett la dóor Chelsea waaye nag ni ki démb feete na bu baax a baax championnat bi nga xamante ni ñoom daal nañu koy jël ginnaaw fanweeri at yoo xam ne maanaam ñoo ngi ko doon wuti mënuñu sa jot yéenekaay gi xëy na def am nat nee na nag Liverpool maanaam gagné ko ci ab terrain lu jafe la ndax année bi amul kenn koo xamante ni gagné nga ko ci stade bii Anfield lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay victoire am na ko ci dëkkam ak benn nul journal bi nee na Anfield gagné fi Liverpool ay at a ngi nii kenn mënu ko